ñii dañoo ca kanam mboolo mi ñu woowe Tuuba Mbàkke nag ca kanam daa mel ni sëñ bi da cee rof doole ñoo ca kanam mboolo mi ñu woowe Tuuba Mbàkke nag ca kanam daa mel ni sëñ bi da cee roof doole ñoo ca kanam setal na mbedd yi leeral kar ci yépp mu leer seen mbir leer na ku leen bañ ñoom de ñoo ca kanam setal na mbedd yi leeral quartier yépp mu leer seen mbir de leer na ku leen bañ ñoom de ñoŋ ca kanam. jiital ci siyaar bi Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou xalifa général des mourides di ñaan yàlla mu bàyyi ko mu yàgg fi loolu tawér euh, ñun nag tey dañoo ñëwoon ci laasama liggéeyu assainissement Touba ci kanam waajal màggal Touba ñun la waa Tawfekh Café Tawfekh si di ab GIE boo xam ne si waa Sot Diakhaté ñoo ko créé di ci liggéey liggéey di ci ñaq jariñu waaye Eh, jéem a taxaw taxawal dëkk bi ci lépp luy soxla ci événement soxla ca si wala nangam rek waaye tey jii moom dañoo ñëwoon di barkeelu si ci liggéey bi loolu moo nekkoon ah, ah, actualité waaw dañoo ñëwoon andi suñu participation ci suba ba léegi yaakaar naa bi naafeer jotee ba léegi avant nit ñu bëri di ñëw sax ñun tàmbale woon nañu servi te ba nii bàyyi woon ñii servi te fii ba nit ñaa ngi fi rek ñun te lépp di ko defaat addi si ndax kat bëggoon moom moom lañ ci bëgg a yëkkal def ko ci liggéey ko Sëñ Tuubaa ndax dañuy ay nawet dëkk waaw di woo ñëpp ci liggéey bi nag euh, GIE bi tawfeex tawfeex la tudd tawfeex bi muy andi tawfeex café andi tawfeex entrepreneur entreprise yu mag yi andi tawfeex élément tawfeex comme yëpp rek lépp lu jëm ci wàllu liggéey rek ñu ngi ci waaye pinto nii bi ñuy bi ñuy jëmbalagul mooy tawfeex café mooy defal café sachet ak di ko segg comme ni ci euh, jotaay yu mag yi waaye ak euh, jus naturel yi nga xam si fii ko defaree ci réew mi consommé local ñu koy joxe di ko jox épicerie yi di ko jox ci biir place publique yi nekk fii ci biir dëkk bi yëpp loolu mooy métier bi jus naturel ak café daal hmm. waaw liñ ciy yëngu moom waaw ñu ngi ci daayira yi ñu ngi ci liggéey bi lépp lu ñu ci soxla rek ku ñu ci contacter am na euh, service boo xam ne ci loolu rek lay yëngu ñu mën cee waaw ci loolu la ñuy def message bi nga xam naa mooy di sant Sëñ Tuubaa rek di gën a ñaaxaat ñun ñun ñun ñun ñun ñun xale yi nga xam ne si ñoo mujjee judd eh, Sëñ Tuubaa dimbale ñu ñu mën a gis lu ñu mën a jëfa Sëñ Tuubaa te fekk yu woon jamonoy Sëñ Tuubaa ca jëf yooyee ba jëf ci kon lii ñu fi fekkee occasion bi nañ nañ góorgóorlu ba liggéey Sëñ Tuubaa yi ñuy liggéey kenn bañ ñu cee mën voilà ñu ngi koy lancé appel di ci sàkku teewaay ñëpp waaye Tuubaa ca kanam bi di wax ñëpp ñu jàpp